الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مكجر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أبو سنتي يالا جولي سنتي يالا بابا ويدي النبي صلى الله عليه وسلم أكو أكرم الصحابة أمي أكي بقام يعني تبسونا بإلى يوم القيامة دي يالا يالا بولي سنيو يالا هي جامع إندكو فنانوكو ñu feebar nekk ci kii nekk ci lopitaan bi yàlla mi may saafara yàlla mi subhaanahu wa taala may afiya waaye julli julli àllaaxira yàlla yërëm leen yaatal seen bàmmeel leeral seen bàmmeel def seen bàmmeel nekk rawtatu mbir yaajal janna njaboot bi yàlla sàmmale aar leen laxale fi yaa egtule seen siraatu mustaqim yàlla defal ñu xéewali àddina xéewali àllaaxira muccoy safara amin mbokk julli dina fi si daaray muhammad salaa sallam bi jàngalekat mu boobu di ndokkale ñëpp si bés bu maaga bi di ñaan yàlla subhaanahu wa lépp ñu si jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangu yàlla ñu ko fekkee ajuma yu bari bari bari bari ànd ak wér ak wérle yàlla subhanahu taala defal jaami àddina jaami àllaaxira musal safara amin mbokk waxtaan bi mooy xaqiqatul daanaka suñ doon wax moom lañ doon jàppee ne mooy war a nekk juróomeeri xalifa waaw waaye xulafaay rachidin waaye xalifa ñeent lañ woon muy Aboubacar Omar Ousmane Ali waaye Omar ibn Abdul Aziz taxaw woon na taxawaay boo xamee ne li ñooñu doon def si jëf ju baax ak gouverneur ak ruulin bu rafet jàppale baadoole nekk ci axi nit ñi nekkoon na loo xam ne defoon na ko ba mot sik si jamono bi nga xam ne nekkoon na xalifa rahimahullah mu ne moom mu ngi wax mbi dee mooy lan mu ne alaa tarawna annakum tasiuuna fi kulli yawmin gaadiyan rahilan ilallahi taala mu ne bés bu nekk rek am na ñu ñuy gunge ñu ngi gunge ay nit waaw nga xam ne ñu ngi leen ay delloo si yàlla ñu ngi leen ay delloo si yàlla ñu ngi dellu si yàlla ñun ñu ngi leen ay jël di leen delloo si yàlla ñoom ñu ngi dellu si yàlla te ñu ñëpp si yàlla la dellu mu ne kooku ñoo dellu si yàlla fakat xadaa nax baxu ndeysaan ku gannaaw bi nga xam ne li mu am si kaw suuf yëpp am na ko li def yëpp def na ko kenn du génn àddina fekk sa warsak si kaw suuf jeexut waaw li nga war a am ñëpp xataa wax nañ ne malaaka bi nga xam ne mu amee warsak dina daw dem east west south north di seet balaa malaaka mawtu di jël sa ruu di seet yow lan nga desee si warsak si kaw suuf fu mu dem rek ñu ne ko déedéet diw déedéet desetu fi dara jeexal na fi ñeenti koona yi àdduna bi yëpp dina fa dem seeti la nga fa dese si warsak lu fa des rek xataa nga gis ki nga xam ne sax ñu ngi koy sixal ay kudu ndox nga gis benn bi jaala ñaareel bi jaala ñetteel bi du jaala parce que nekkaatu warsakam nga gis ndox boobu dafay tuuru ñu ne ah mënatu la naan loolu tuuru noonu nekkaatu warsakam mënatu koo naan ndeysaan muy nettali loolu nag mën nga gis kooku daanaka lam doon mébét yëpp jeex na ba balaa ko lam doon mébét yëpp jeex na yëpp taxaw na waaye lana si des mooy ñu enu ko daldi ko yóbbu dem jébali ko si biir suuf suuf soo xamee ne nekku ne dañoo jël baam bi yaatal ko wala guddal ko ba gudda déedéet lu am la mooy doon bu guddee bu guddee ba gudda du passé ñetti mètre waaye foofu nag amatul benn sabab yëpp taxaw na tàggatoo naag mbokk yi tàggatoo naag soppe yi tàggatu naag am di jaama yi lan la moo dem jànkuwanteel mooy jëfam ya xisaab ñu laaj ko dundaam si kaw suuf si si doon dundee si ban anam la doon dundee si kaw suuf subhanallah amul ne baalal ma ma ñëwaat war xaaral ma delluwaat si àdduna ndax ma jëm defar li yaaxa li ma jël si nit ñi te waruma koo jël alal nit ñi ma jël axa bi nekk suma diggantee di wa diw loolu nga ne yàlla mën a déedéet loolu moom mu ne dogalee ticket yi boobu rek xam nga am na boo xam ne benn yoon rek amul dellu si waaw ni danga day ñaan yàlla nga dellu si waat waaw waaye bii bu ñaanee rexla la rek tukki la rek joni la boo xam ne bu ne ticket bi dog nañ ko rek amatu dellu gannaaw loolu tax ñu ne digga digga dee mooy lan mooy taayurul xaal wa intiqaal min daarin ila daar yantaqilu al abdu min daari dunia ila daari barsaq mooy ne dee mooy jógee si place bi dem si place bale maanaam jógee si dëkkuwaay àdduna àdduna bi nga xam ne yaagut gannaaw àdduna ki génn àdduna fan la mooy dem demagut àllaaxira mu ngi dem fi ñu ay barzak barzak nekk diggante àdduna ak àllaaxira ñu dee ñëpp amul kenn ku dugal arjana kenn dugaawut arjana dañ leen ñaan yàlla na yàlla dugal arjana yàlla yàlla subhanahu wa taala eh, yërëm leen dugal leen arjana haka ñaan la pour gannaaw yowmal qiyaama gannaaw bu la laa ci ku nekk sa jëf ñu seet sa jëf bi nga gis ne yow sa jëf baax na ñaam bi ne doon ñaanal yàlla nga dugg arjana ah kay di ñëw def ñëpp nekk fi nga xam ne mooy barsak barsak boobu nag ñaari foofu mooy fi ñëpp di nekk waaw summa yuxbasu fi barsakin ilaa yawmi yubasuun fa la ñu nekk bi yàlla subhaanahu wa taala dékk jaam yëpp barsak ñi dee ñëpp a ngi barsak bon barsak foofu kii texe xam na dëkkuwaayam si barsak dina gis xam na moom fa moo dem ki nga xam ne nag dafay texe di du dugg arjana moom tamit si barsak dina ko gis di foofu daanaka yëpp leer na waaye kenn demagul fi nga xam ne mooy aate ba waaye ku nekk rek di nga gis sa sa place fi nga xam ne mooy imma janna wa imma naar imma arjana wala safara ku nekk barsax rek xam na fi nga xam ne mooy sa dëkkuwaay wala yàlla na suñu dëkkuwaay nekk arjana yàlla subhanahu wa taala defal jàmm defal ko mboolem bi ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin amin